am na quatre xam ngeen quatre femmes. quatre jabar mais paa bi comme taawam rappeur la rappeur yi dañoo taamu souvent bu ñu sangoo pare dañuy jël seen tubay ceb ko ba ci oom yi di dox di dem seen yoon doom ji xëy ceeg paa bi oo ko ne ko MC kaay MC ñëw mun ne ko MC yow yaay taaw te nag bëgg naa nga def li nga xam ne nii bu ko sa rakk yi gisee dinañ mën a roy ci yow MC ne ko papa lii affaire de rappeur la donc question de habitude la yooyu noonu papa ji ne ko kon baax na MC dem bu leen fàttali ne papa bi am na quatre. quatre femmes waaw kay kon baax na. MC xëyaat la même chose répété affaire bi MC jëlaat tubéy bi cek ko ba ci suuf papa ji woo ko MC ne ko papa li ma la waxoon démb question de habitude la papa ji ne ko MC man sa baay ñaata femme laa am mun na ko quatre mun na ko du xam nga li ma dëkkee mun na ko déedéet mun na ko bu doon question de habitude xanaa nii laay doxee. xanaa nii laay doxee bu doon question abi xanaa nii laay doxee la demee kon boog One Love ba ca kanam incha allah wuy sama ay tey mu takar naa seer tey mu mel ni màggalu Tuuba na nag yi daja xola lekk soos ba daw ni def sa muus suñu beeg moom tiis par takkusaan waxtu yëpp yaa ngi si duus ma ne xoola nga ne am na lu fi xew man di neen ko wax loolu lu mu am na lu fi xew man di neen ko wax ay ta nga naan seni wa raw ndi wa pata bi tax raw ndi wa pata todol garde te rëbb samay pacca sanu dangaan simbi njaay ëllë ku ba tax ku gëta ba tax waaye ndeer waaw en parce que ba mu ñëw am na lu ma métti nag du sérieux laa wax quoi dafa am lu parce que man mënu ma ñëw ndekkiwu ma fekk bu benn waaj yoo xamante day jaay kafe kese xam nga man kafe café meew lañ lañ ma santaane pour may naan d'accord léegi saa ma ne ko jaay ma café moom non non du jaay du jaay café meew ko café man ko léegi téeméer nga jaay ma café ak meew sinon damay am problème quoi d'accord waa ji jaay ma café ak mélange quoi xam nga tey tey xaw a sokolaa noonu saa waay may naan doxaat beneen paa man naan doxaat beneen paa man naan muy café normal benn waay romb ma jékki-jékki sigg xool nii di naan nii rek gis café kese ndek waa ji tafu na meew bi kese kese bàyyi ma café kese kese ma am problème Equivox su fii nii laa koy waaye pour ñu am problème dëkk bi waa bari na insécurité waa ji amul lu may taf lu dul lu même kese kese problème boobu la am quoi problème meew bi fu mu jaar. déggoo ma de xam nga liquide bi meew kafe ak meew bi liquide bi noonu nu mu liquide noonu waa ji tafu kafe bi meew bi kese bàyyi fa café kese kese kese. léegi nga def lan café ma tuur ndey café gi. non yow nu mu demee da nga doon reetaan quoi yow. waaw dama doon reetaan de. lan la lu xew. dama xam. xamoo sax li xew ngay reetaan. xawma da ngay ñëw rek di forcer di reetaan nii quoi. Ah, rek may ree te xaw ni may ree. mais nii nii nii looy ree. déedéet. waaye foo jógee. Sénégal. ci fan fan ci Sénégal. Géejawaay. Géejawaay. waaw dafa am dragon gan moo tax ma daw ñëw fii. ah léegi fii nga dëkk. waaw fii laa dëkk. yee loolu yéeme na de. ndax damaa damaa jógee fee ñuy maye deret. koñ ba dama fekk ñuy maye dama leen fa bàyyi maye deret benn Baay Faal ñëw. mu ñu ñu samp kii bi xëcc mu nekk Café Touba. yaram bi Café Touba ci ne. Café Touba ñoo mën a topp cant yi rek. mais kooku lu muy mayee deret kon. ah la nit ñi nit ñi di wut deret yow ngay maye Café Touba. loolu deret Café Touba la. kii dafa def événement bu mag biir Dagana. alors woo comédien yeeg humoriste yi yëpp ñu ñëw ba biir Dagana. mu yëkkati xaalis bu bari jox ñu ko ñu passé dem mu dalal ñu fu baax ñu lekk ba suur naan ba mandi dugaat oto ñëw dërëm gaajo accidenté <laughs> ak V. ak V sa loxo fa loxo bi defee nii ba léegi. waaw waaw waaw boobu ba léegi mooy dem ci moom. waaw ki daal mooy zëm. donc moom it mi ngi ci. ki daal mooy Balla bu romb Kina. mooy teewal Sénégal bu nekk <laughs> kii. kan mooy Balla kii. kan mooy zëm kii mooy zëm <laughs> kii moo nekk école boobu Brest Senghor. école boobu laa dem fekk fay élèves. ndeysaan an sa paa bu baax bi gaañu na gaañu na paa boobu mooy jàngal élèves boole si courage bañ na ko ba buy def ay cour mat calcul mental def nañ ko ñun ñëpp day jël ndeysaan ay bonbon uniquement pour élèves yi am encourage bu ne bu ne Moussa Ndiaye un plus un Moussa Ndiaye ne égal deux mu ne ko voici deux bonbons pour xale yi jàng ndeysaan bu ne quatre plus quatre trois mu ne ko égal huit mu ne ko voici huit bonbons bu ne ballak cinq plus 5 mais égal 10 mu ni voici 10 bonbons. bu xool am di xam ne nilaar la mu ne que am di un plus 1 am di ni xam ne bu ne égal 2 2 bonbons lay am am di ni égal paquet. da sonn nii ci yoon wi wala nu mu demee noonu parce que dañoo gis nga ñax sedd. Euh, waaw un rek ndax xam nga bi ñuy ñëw. dañoo tombeek dégg naa fii dafa amoon élection pour ñuy wàcce seen président bi fii waa Yëmbal. président président fii nii yëmbal loolu moo tax ñu xaw a yeex kon yëmbal dafa am président. si yëmbal bokkul ci Sénégal. état yëmbal bokkul ci Sénégal. non état boppam la. mu soo yëg loolu. mosuma yëg loolu. si ñun dañoo arrêté fee ñu ne ñu gars yi dañuy def élection fii moo la. saa yow ni nga sérieux nii doy na waar de. man nag je suis comme ça dama sérieux. mais lan mooy kon seen drapeau ñoom. yëmbal. am di wax na ko léegi dañoo jóge ci état ñëw ci état xam nga fa wax dëgg la si ñëw Sénégal ngeen jógee ñëw yëmbal xam nga rek dalay da ngay sonn quoi ak vol yeeg yooyu noonu dangay sonn te xam nga rek te passeport fii dafa metti am seen visa rek dafa metti moo tax quoi événement bi commencé gul nga sonn parce que xam nga lan la man dama nekk ni koo xam ni man ñëpp man lay woo nga éviter un million dix si ay nit un ci ay nit ñëpp man la ni woo sama numéro lan am ñëpp nga war leen jëli ku nekk bokkaloog sa morom foo jugee loolu faaw ma sonn bàyyi aw ma oto inondation bi ndox mi fépp la nekk barki Sëriñ Tuubaa Mbàkke dégg naa da ngeen changé si président waaw kon beneen dëkk la kon nii non ñun rek ñun danoo tànn danoo def campagne bopp ak suñu président bopp mi man ma ñu ngi mooy suñu président voyage la fii moom ku fi def ku fi ñëw rek sacrifice la man waa banlieue dama leen bëgg mais fii dafa xaw a sori nguur gee war a xool ni muy defaree euh, tali yeeg yooyu ba ba transport bi gaaw daal parce que pour wan la ne dafa sori man damaa taxaw ci tali bi tali karo bi di seen jumaa Touba jumaa Touba benn sóoróor bu mag bi yëmbal dafa sori de mu koy vite fait boo defee boo jàddee ni koñ bi koñ bi ci topp yaa ngi Tamba wala Louga boo taxawee ci tali karo bi yaa ngi seen jumaa Touba dafa sori torop état. gis nga yow yow yow boo jàddoon nii nga wàcc tari talikara boo taxawee boo dul seen sóoróor bi kay man lu ma la lu ma la waxati rek bu ko gëm. Tamba tamit boo jàddee nii koñ bi. koñ koñ bi boo bopp koñ bi. boo jàddee ba taxaw ci bopp koñ bi yaa ngi Tamba walla boo boo boo avancé tuuti yaa ngi Louga.